di nuyu téléspectateur Pikini production yi mhm. téléspectateur internaute Pikini production yëpp di nuyu monde entier mhm. di déwénati ñëpp aussi di baalu àll ak ñëpp ci weeru koor bi ñu nekk mhm. di ñaan yàlla yàlla ñu ngi ci duggal ci bisimilahi rahmaani rahim génnee ci ci alhamdulilahi rabbil alamin balaa bi nekk ci réew mi nekk ci àdduna bi fépp yàlla teggi ko delloo ko ci nekk ci sagoom delloo ko ci nekk ci ay boppam ñi mu jot dal yàlla saafara leen ñu mu dalagul yàlla leen ci yàlla musal

ma ne si am naa compte Instagram mais Chacha VIP moo ci nekk te alimenté wu Il y a seulement sama profil ak benn photo ñu nekk ñun trois actrices VIP sañse yi amul mon mën non parce que qui piraté sa compte gis nañ ci am na ci après lu tolloog ay lu ko manqué cent photo bariwul je le dis ici, kon dañ ko Mon mun ma voilà dafa am ku la koo xamante ne dafa mettre encore ak quelque chose comme ça tu vois xam nga Marietou bëgguma dugg ci ay détails li mu def lépp donc dama ñëw rek uniquement pour wax ak euh, téléspectateurs yi wax ak aussi fans ñi bëgg VIP ak ñi bëgg Fatou soo yëpp tamit aussi di ko topp partout. xam nga ñun li euh, ñuy def lañ ci jublu bu dul yi bëgg ko di leen bégal. et donc loolu aussi nit bëgg la di platé say compte duggal sa photo loolu tamit gisuñu ma ci loo xamante ne dafa ñaaw parce que nit ku nekk ki la bëgg rek moom moo la sonal. mais dafa am ñoo xam dañ ciy mal intention yi dañ ciy def lu leen neex kii da ci nekk def mënu ma toog fi di ko wax parce que bëgguma dugg ci détail parce que détail mooy andi détail dama bëgg a wax ni rek ñi nga xamante ne jot na jëflante ak ñoom ñi nga xamante ne jot na wax ak ñoom ba ñu jàpp ne Fat Bousso la ñuy waxal du Fat bu Bousso ngeen doon waxal ki piraté compte Fat Bousso ngeen doon waxal donc piraté na sama compte ci wax ak képp ku mu mënta doon donc dama bëgg di samay responsabilité wane ne képp ku mu mënta waxal ku mu mënta jëflanteel mooy lu ñaaw mooy lu rafet ak kàddu mënta jëflante ak yow jëflante woo ak Fatou Bousso parce que Fatou Bousso compte Instagram bi mu ci am ba mu ko ubbee mu si sax dugg voilà te donc aussi pour wax tamit aussi ñi fans yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg mu jëflante ak ñoom tamit ci jëf yi nga xamante ne rafetlu ma ko maa ngi leen di jéggalu parce que man maa siiw man ma dugg ci milieu média ñu xam ma ci kon donc bu ñu jëlee sama tur ko utiliser ba ci yakal ñeneen seen liggéey wala ci def leneen lu ñaaw aussi tam damay jégalu ci ñi nga xamantene ne jot na leen ko def mais en plus comme def na ci lo xamantene ne mën na jur leneen ëllëg parce que nit ku nekk sa sa sa sa jëm sa tur nga am sa personnage nga am ak li nga xamantene ne moom la suñu borom may moy sa fulla ak sa fayda donc do nekk sa cœur nekk sa liggéey nekk sa yeneen détail ay nit nekk fële de sa compte sa tux du ci def ay affaire yu doy waar parce que li mu wax li mu li mu ci def mënoon naa toog fi di génn ay détails. mais lan li ma ci mën a préciser lenn la. Mhm. mooy dama toog keroog premier jour weeru koor gi am benn tailleur woo ma mhm. suñu tailleur la ma ñuy solo ci biir VIP se ne ma dafa am benn tailleur boo doon benn benn waay boo doon waxal boo xamante ne dafa am marque bu mu bëgg bu mu bëgg a siiwal Espagne la nekk. Mhm. donc neen dafa la dafa la jot ci Instagram bi waxtaan ak yow ne dafa bëgg nga dugal marque am ci sa compte Instagram. te aussi itam bu fekkee mën na la jox ay modèle am nga koy solal ñu commencé ñoom ñaar di waxtaan ci ay prix donc kooku tey ji moo ki ma piraté kooku tey muy waxtaan ak nit di ko waxtaan ak moom di waxaale ak moom ak xaalis te jàpp na ni fat bu solo lan waxtaan fat bu solo lan waxaaleel donc lu ko may sens moom mooy que jotu ko envoyé xaalis bi daf ko ne ok c'est bon woo benn tailleur boo xam ne daf ñuy solal ne ko dama bëgg jox fat bu su mu ma sama marque bi nga xamante ne moom laay moom laay def

dafa nek gel bi jox ma sa numéro téléphone ak sa jox ma sa numéro ak sa tour mo mën la dougalal xaliss wala ma am keneen ku ma la bolé mën la jox mo jox la xaliss bi donc gel bi la rien dit donc ne ba may wax ak mom xam naa gel bi fuko coupé parce que xam na ne bu joxé numéro bi wala mu joxé benen tour bo xamantene ci la mën joté xaliss bi du tour bi nga xamantene mom la mom may tuddu du tour fat bu sowal du nek tour ay sa tour Dramé bi nga xamantene mom la dug dugg dëgg-dëgg waa ji ko ne ko non ki nga wara yondé sa xaliss mbaa yondé goko mu ne ko déedéet mu ne ko bu ko yondé parce que du faat ba soo boo ko yëgee dama ne mais ki dafa am fit parce que loolu crime la quoi ci turu jambour nga ci waxaale ak nit jël seen xaliss te lima wax non loolu mo ci gëna ndaw parce que loolu rek la mën a préciser ci lu mu def mais am yeneen yoo xamante ni da koy def te mo xam mom la gëna ñaawlu té mun na am sax moom ci def yeneen détails yo xamante yegumako donc dama bëgg xam xam fek mo kumu mënta doon ak fépp fo mënta ne mu nekk goor mu nekk jigéen porte naa ko plainte ma parce que dafa am détails yo xamante ne bayé non rek mu sedd

donc ma ne balaa musiba di ñëw dal sama kaw parce que bari na ay fait donc dégg na si tolloog 10 ba ay 15 fait yo xamanteni def nako ko xamanteni dafa graw je sais pas mun naa am sa am na ñu mu jot a sen xaliss xaalis peut-être am sa goor ñu mu jot waxal taxaw ma ñala peut-être mën nañu seetaan Fatou Biso télé bi nan ki la doon wax ak dem wala ki la doon jëflanteeg nangam te fekk du fat Fatou so donc je dis que c'est pas moi képp ko leen waxal ko leen jëflanteel du man pot naa ko plainte yobuna ko ci yoon donc bayina yoon mu def liggéeyam le reste dama ñëwoon wax ak internetu Pikini Production internetu sénégalais yépp ak fépp fu doomu aadama yi nekk di ñu seetaan ñu bëgg VIP Sensé ñu bëgg Fatou Bousso suma fans yi nga xamante ne fu ma nekk ñu ngi koy dem uti ñi nga xamante ne dañuy toog tout le temps compte Fatou Bousso lañ bëgg Instagram Fatou Bousso di mais ñoom dañuy ñëw toogaat ne la non maa ngi Fatou Bousso ci ak ñoom lan lay wax ak ñoom peut-être ñeneen ñi muy waxal lan lay def ak ñoom comme jot na waxaale ak tailleur ba nar a encaissé xaalisam est ce que waxaat beneen téye di encaissé xaalisam donc moo xam moo taxoon ma ñëw pour waxtaan ak Sénégal xam ne compte Instagram boo leen gis mu am beneen tour am photo ak nit ku mënta wax ak yéen du Fatou Sow sama compte Instagram Chacha VIP moo ci nekk benn profil moo ci benn profil moo ci nekk et je pense que benn photo laa ci def ñun ñetti acteur VIP ñun ñoo ci nekk à part ça alimenté wu ma ko defuma ci leneen waaw. mais Fatou Sow li ngay waxee ni bu ñu déggee dafa mel ne. dama jot ci ay info que ne dafa def lu garaaw garaaw garaaw. waaw en fait Marietou comme li nga wax rek man euh, tey bu doon sama soxla du ma toog fii sax di wax ci sama compte Instagram. Mhm. piraté nañ ko parce que piraté nañu ñëpp man du ma daa <laughs> barki démb laa commencé dugg ci internet bi barki démb laa commencé nekk actrice joué VIP bi sant sénégalais bëgg ko damay sant yàlla parce que loolu laa ci jublu woon mhm. joué dara nit ñi gis ko bëgg ko. di jël sa sama compte di ko pirater di ci dugal samay photo di ma bëggee loolu moom may moo may xam ne man li may def nit ñaa ngi koy bëgg li may def mi ngi jëm ci kanam loolu la ñuy ñaan yàlla mais dafa am ñoo xamante dañ ciy def yu ñaaw li mu def bari na loo xamante ne am na lu ci loo xamante ne moo li ma ci wax nii moo ci gën a rafet ci li mu def <laughs> loolu moom sincèrement bugguma dugg ci ay détails mang la ko ñaan mang la ko jégalu c'est sa maman arrête bëgguma dugg ci benn détail bayima baye non noonu précisé naa daal mu jot a waxtaanal le reste mom xamna mom moom mi ko def xamna lu mu def té donc tamit ñi ma jox information yoyu dañ ci am lu leen leer ñi ma jox information dañu jot wax ak mom jéem jox jot wax ak ñom ci a wax ak ñom sax ni directement mais ci ay noirci ba ñu wane ay kanamam ba ñu wane nangam donc ñu la jotee ñom ñoo ñëw ci man informément gis né fee yi bari na donc mo ne dafa jot nak après ma wax ak. ñi nga xamante ne jot na wax ak ñoom ñëpp jégalu leen bu wane aussi képp ku ñu mënta waxal du faat bu so c' est pas dama dégal sama responsabilité parce que nekkul man la ñuy waxal donc tam aussi pour mu arrêter parce que li mu mu def dafa rafetul parce doomu jullit dafa xamante ne bu ci dugg xamante ne bu ci dugg ci doomu jàmbur parce que doomu jàmbur dafa nekk ci liggéeyam bëgg leen ngeen bëgg ko donc boo plaatee kontam def def dugal ci ay photom def ci lu rafet moo gën nga ciy def ak détail yoo xamante ne benn nit